Ndị ga-eche ndị fi igwe anyị Ụlọ ndị na mooy li nga xamante ne xew na fa la ci assemblée nationale ñu ñaawlu ko lool parce que nag dañ fa gis loo xamante ne euh, yàgg nañ ko gis assemblée mais bii yoon dafa ëppi loxo ndax dem nañ ba gis fa ay gendarme c'est comme si que euh, fi ñu nekk nekkatul euh, kër boo xamante ne dañ fay wax suñu doléance c'est comme si que assemblée nationale nekk nekk na foo xamante ne ay xuloo ak ay xeex ndax nag bu yàggee mën nañ ne foofu nekkatul maison de la paix nekkatul maison bi nga xamante ne dañ fay daal di wax suñu xalaat daal di wax foofu suñu ay problème mais nekk na foo xamante ne ay guerre moo fay am ay xuloo xeex ak saagante dama bëgg ñu seetaani honorable député bi lu mu wax ci biir li nga xamante ne mooy assemblée nationale ginnaaw bi ñu voté euh, ah, bi ñu voté li nga xamante ne président Macky Sall moo ko doon sàkku ci ay député am ñu voté à ce suñu ay élection ba ci kanam a laataa ñoo saytu li nga xamante ne moo fi jot am lépp ba mu leer ñu door a dem ci ay élection présidentielle nañ dem seetaan vidéo bi ñëwaat. Ah, wax waaye li jot a am nii tey na xel kon tey na xel nag na ko askan wi taxaw ñu leeral ko dem ci élection yoo xam ne tey na xel tey bii wax dëgg yàlla am est jar na ko man sax damaa demul élection ci condition jërëjëf. sañ naa ko sañ naa ko. day def woote résistance. Benno Bokk Yaakaar di attaqué euh, justice. <laughs> Hmm, loolu carrément la de situation bi inversé wu nga ñoom Sonko ne xeexatu. ñoom Sonko ne nañu respecté justice. waaw xeexatu <laughs> te def élection. àddina yi. ah àddina àddina yi yàlla léegi du ah. bëgg béré béré bañ bëgg béré dana tax dana béré. kon yaakaar na ñoo seetaanandoo vidéo bi moom nag nee na demuñu élection ci li nga xamante ne mooy lëndëm lëndëm yi ñu nekk sénégalais yi nag ñu bari comprendre ñu li tax ñu reporter élection yi ñu bari nanguwuñu déglu. les raisons pour lesquelles nous reporter élection yi man mën naa cee bañ a ma Samba mën na ci baña and ma dem ba àndit parce que décision buñu ñu mënti jël ñëpp mënuñu ci and quelle que soit la décision dina am forcément ñi nga xamantene dañ koy contre ak ñi nga xamantene dañ ci and lolu mënta ñak mais nak bu fekké ni c'est pour juste leeral li nga xamantene déjà dañoo accuser suñu ay charge de corruption loolu dafa war a mën a leer ñu dem ba ci biir gis ay candidats yoo xamante ne dem nañ ba am preuve à l'appui am nañu li nga xamante ne mooy double nationalité te suñu ay loi da koy tere ku am double nationalité jàll wala jiite suñu réew mi loolu yaakaar naa lu ñu war a mën a saytu la ñu dem ba li nga xamante ne mooy parti dissous boo xamante ne nee nañ képp ku fa nekk mënoo nekk candidat indépendant ba pare nag gisuñu benn parti boo xamante ne euh, mooy accompagner ki nga xamante ne mooy Diomaye Faye te gis nañ ni Diomaye jàll na ci les vingt yi nga xamante ne validé woon nañ ko donc loolu tey na xel te ba tey joxuñu benn benn benn raison bi war a tax ñu ne ci lii lañ basé wu ba Diomaye jàll et alors que ñëpp xam nañ ni que Diomaye moo njëkk dugg Ousmane Sonko kaso te li ñuy toppee Ousmane Sonko nee naa leen xaaj bi li ñuy toppee Diomaye donc comment se fait-il que Ousmane Sonko mënul bokk ñu bàyyi Diomaye Diomaye bokk te gisuñu benn parti boo xamante ne mooy gunge Diomaye benn beneen bi ci topp dañoo tare koo xamante ne amoo benn parti kenn porté la. ba pare dañ naa dangaa génn ci parti bu ñu dissoudre amadul amagul un an nga bëgg a jiite suñu Sénégal gi donc yooyu yëpp sénégalais yi tey toll nañ foo xamante ne dëgg la dañoo mer ba futtu am benn haine dem ci élection ndax jàll ci leneen